dikkati na loo ci mënti xel jaxasoo na fi mu ne ci fichier électoral ba Walf Quotidien xamal ma ko turbine yéen kaay naan ko dee tegal fii sa ma xamal la ni sélection kay moo am du ay élection présidentielle ndax nag dañoo bëgg defub sélection boo xam ne xaal yoon fa yàllaaxu moom mooy am ngir Amadou Ba mën a doxal ànd ak ña nga xam ne ñoom la sàll ngaari tabb ngir mu ànd ñoom doxal gi nag daal di am na mu neexee yéen kaayub dee média bi naan maan Boubacar Camara professeur Daouda Ndiaye Cheikh Tidiane Dieye Anta Babacar Ngom Habib Sy ak Déthié Fall tribune yéen naan man waxtu woow nga xam ne Karim Meïssa Wade ak Khalifa Babacar Sall boo moytul ñu bokk ci présidentielle bi ndax nag ñoom dañoo ameel nguur loo xam ne fayeguñ ko tribune yéen a kaay naan man en tout cas xel mën na tey de ndax ñi jëm ci présidentielle yoo xam ne ña nga xam ne ñoom la état bëgg ñu ànd ca bëgg ñu bokk ca ñooñu ci boppam boo tul ñooy daal di bokk Mimi Touré ci Walf Quotidien naan kon ban fichier lañ war a wóolu ndax fichier bii nga xam ne gis nañ ko na ca wala le quotidien le quotidien naan kon en tout cas ñaari ancien PM fi ñu ngi jooy gannaaw Mimi Touré Mohamed Boun Abdallah Dionne day ma ngay naqaru la nga xam ni noonu la ñuy vérifier parrainage bi ñoom ancien premier ministre yi di jooy <laughs> jooy yu miti sax ci parrainage bi nga xam ne noonu lay amee ci réew mi tribune yéen a kaay ku naan leen di ngeen xam ku leen di nax wala seen jooy yi day safuñu yow Mohamed Boun Abdallah Dionne ak Mimi Touré yéen ñaar bokku ngeen ci ñi nga xam ni yéen a taxawal parrainage bi jaay parrainage bi ba mu jar ji yéen a taxaw nag naan parrainage bi scandale la di ngeen ko wéetoo wala fi mu ne day ñama sa jàpp ne parrainage ay naxee mbaay la yéen a bi naan maan ñoom ci boppam ñoo jëra déglu du keneen l'enquête quotidien naan kon en tout cas coppet ci bii teg ci bee bee ne ko rajax moo am ñaareelu wërngël parrainage bi nar na mitti wala ña nga war a jaar ci ñaareelu wërngël gi waaye fi mu ne kan mooy njëkk jaar ak ku cay topp loolaay coow la ñuy jàpp ne ñi nga xam ne ñoo gën a tuutilee la ñuy muttili mën nañoo jiitu ñeneen ña coow la nag nekk ca doublon ya waaye tam ñi nga xam ne ñoo joxe seen carte d'identité ak seeni carte électeur te ci fichier bi laaj ba moom moo di kan moo def erreur ba 24 heures yéen kaay naan ko dara dara fichier bi ci boppam moo tey xel loolu mooy dëgg la nga xam ni def moom moo di ak segg segg goo xam ne ñii mën nañoo jàll ñi ne ñu daal di leen di rëkkale turbine yéen a kaay naan koon segg gi kay leer nañ segg gi moom di ña nga xam ne bëgg nañ ñu jàll ngir mën a ak Amadou Ba ngir yokk ay chance u Amadou Ba ngir mu jàll moo am ci réew mi am nañ seen yoo xam ne ñii ñoo war a jàll te candidat yooyu ñoo war a jaamaarloo ak Amadou Ba te candidat yooyu natt nañ peese mu wóor leen ni candidat la yoo xam ne mënuñoo téye Amadou Ba ñooñee daal mën nañu fa xastalu daal di mbaraslu daal di jàll pare parrainage bi fayal laaw ña nga xam ne nag mën nañoo sonal Amadou Ba ñu daal di leen di téye ndax coow li coow li moom moo di raxas nañu bale nañu fomp nañu nëpp nëppal ba Amadou Ba mii daal di màgg doon président bu Sénégal 2024 turbine yéene kaay naan kon en tout cas ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ñoo xam ne rëkkale nañ leen ci parrainage ba nee ñu nañu leen rëkkale jaarul yoon fi mu ne taxaw nañ ci collectif goo xam ne fas nañu yéene xeex ba jotaat seen dëgg Mbacke Sarr ci yéene kaay bi naan kon en tout cas président Macky Sall lan lay ñaan mooy nga ràngoo ak yére goo xam ne gu arbitre la daal di neutre ña nga xam ne def nañ seen kéemtalaay kattan ba daal di jàll yow sàll nga bàyyi leen ñu jàll mooy dëgg yéeni kaayub des média bi naan ko seen jàll nar a mitti wala ndax jàll gi sélection la ñay jàkkaarloog Amadou ci élection présidentielle yi natt nañ leen xam nañ leen vox populi mel ni ku naan kon en tout cas Amadou na jël mu di bi yóbbal sénégalais yi mere nañ leen ba futtu ndax ab étude xamle na ni ñeent ñoo jël ci réewum Sénégal ñett ña moom na ñuy dundee ci réew mi neexu leen seen wér-gu-yaram baaxul matul wàllu njàng meeg njàngale mi baaxul matul wàllum xëy mi baaxul matul nañu dëkkee baaxul matul état de droit amul ci réew mi bonne gouvernance amul ci réew mi kon lii ne ko Amadou Ba sooraale fa yallaahu xam ne luñ ko jiital jiital weñ waa nga desee ca mbànjaxaan wa ndax sénégalais yi ci boppam ñoo yor seen carte te ñooy wote laas yéen kaay naan maan président Macky Sall booba ma ngay gëstu élu locaux yi gannaaw bi radel woote ab forum boo xam ne lu toll ci téeméer ak juróom fukki maire ak adjoint daal dinañ cay teew ñu daal di weccante xalaat ci wàllu zone industrielle communale yi nga xam ne war nañ ko taxawal waaye tam ay partenariat public privé yoo xam ne war na taxaw ci wàllu intercommunal finalité ñoom mairie ci boppam daal di xamal partenaires yi lees bëgg ñu daal di cay investir ci seen gox lu toll ci ñaar fukk ci convention ci wàllu partenariat ñu xaatim ko diggante Radel ak ay investisseurs privés yoo xam ne mënees naa suqali gox yeeg goxaat yi nga xam ni moom la ñu dëkkee yéen kaay bi naan man màgget seen rangoon a doléance su élu yi waaye tam dalal na seen xel ci forum bi ci ñaxtu yoo xam ni taxawaloon nañ ko turbine yéen kaay naan man ña ngay politique waaye yéenee nañ ci réew mi diggante maison de l'étudiant Mbour waa bi nga xam ne daal dinañ koy dalloo ca université Bambey te maire bu Mbour Cheikh Issa Sall def ko gannaaw bi ñu war koo taxawal ca Ndar Ziguinchor Kaolack ak Thiès yéeni kaayub dee média bi naan man prix ràññee Bamba Sow ñu def ko maire styliste vox populi naan kon boobu réew mi nekk ci naqar juróom ci commando yoo xam ne ci marine nationale bu Sénégal lañ daal di bokk daal di ci géej gi yéeni kaay bi naan maan ña nga doon dabi benn bato boo xam ne dafa defoon si ne barta ñu ay dut ci moom lu toll ci juróom-ñaar ci équipage intervention ba ak fukk ñoo xam ne ñi nga woon ca bato ba jot nañ leen sowe boobaak léegi juróom ca ba daal di réer mër l'observateur naan kon kenn ci commando yi day xam nan mooy kan waaye ba tey jii kenn mënul wax fees féete waxtu woowu Sénégal mi ngi waajal boppam jëmale ci coupe d'Afrique des nations le soleil naan maan mu bokk ci groupe C boo xam ne war na ci lëkkaloog ñu ko guuxal lépp mën a métti ci réewum Sénégal turbine sport naan maan fii ci Sénégal kay lay gën a méttee sax ndax jëmagunu ca coupe d'Afrique des nations waaye coowal fan zone daal dinay juddu Ali Mané nag daal di naqarlu la nga xam ne moom la RTS daal di nguufaan jëmale ci fan zone yi daal di xam leen ni fas na jagat-jagatee mbir mi jëmale ca yoon aalimaane naan RTS mbiru ñëpp la te gisuñu benn appel d'offre boo xam ne am na ci lii ba nu bëgg jël mbir mi jébbal ko kenn kese aalimaane naan damaa xëy rek bu Serigne Diagne jébbal ma ab mise en demeure ne organisation fan zone moom moo ko yeyoo moo koy def aali naan ba nii xaatimu ma benn contrat ak kenn ba ñu may teree mbir mi te coowal fan zone bi ci boppam dees na ko réglé ndax RTS kese mënta taxaw daal di ne mooy buur mooy bu moo mën tax nag ci koñ yi kenn mënta teg ab écran seetaan bi te soxla ndigal jaay doole ci boppam moo am ci réew mi te duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg tribune sport naan man coow la ña ngi ko nar jaagar jaagaree yóbbu ca yoon te tey jii nag la mbir mi nar a tàmbali ak lu mën a mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm